yéen waa Saly yéen waa Petite Côte yéen waa département de Mbour ah ma ne Sénégal ba mu daj ah, ci coono jeex na képp ku soxla ay brique ak façon bu mën a doon ma ne brique ordinaire yaa nga fa ma ne urdu yaa nga fa seen building service moom moo fi ne ndeysaan di jaay ay briques de qualité ay briques yu baax ay briques yu dëgër ñu nga nekk foofu ca Saly Joseph a wooteel gaaw ci 77 255 56 58 ndeysaan ñu indi la say briques ak foo mën a nekk charrette yaa nga fa pour livraison yu jege ma ne camion yaa nga fa pour foo mën a nekk ci Sénégal ñu indi la say briques waaye seen building service yemuñ ca briques ya ndeysaan ndax pavé yaa nga fa ñoom ñoo koy defar boo bëggee ñu posal la ko ma ne eh, kër yaa ngi nii jëlal ma lii ci ay po ah seen building service daal lépp lu dem ci tabax moom ñoo ci mën li ci gën a neex mooy dañuy louer ay planche dañuy louer ay été te dañuy louer ay safo kon ah maçon yi mu ngi noonu ñoom nag yemuñ te sax nag dañoo am seen entrepreneur mason koo xam ne boo ñëwee soxla gu la tabaxal ñu boole la ak moom. à gauche Diamna bu ñëw door à droite eh Diamna jël na Gouy Gui eh Diamna daan na Gouy Gui